xam ne mooy jëwriñu daara Miftu almuna ak fépp foo xam ne rek daara ji nekk dafa muy Touba ci soowu ak Louga ak bitim réew ñëpp nee moo ngi siyaare bu baax jëwriñu daara yépp dale ko fii nga xam ne mooy tuuba te Mafal jiitu ko nga xam ne fii la waaye di sant jëwriñ Serigne Mori Kayre bi nga xam ne mooy jëwriñi soowu ak Serigne Mohamed nga xam ne moo féetee Louga sant bu baax Serigne Fallou moom mi nga xam ne mooy taxaw lu jëm ci wàllu bitim réew ñoom ñëpp yi jëwriñ sëñ Mbaye mi ne mi ngi sant mbooleem bépp membre boo xam ne yaa ngi ci biir daara ji boo xam ne am na fu mu waaye amul fu mu ndax ba atum daaw mi jàllee nga xam ne kenn ku ne gis na niñ ko màggalee fii boobu ba tey jii nee na kenn jógul ci wàccaay wi ñu ngi koy waajal suñ kem kàttan bi bi ñëwee kenn ku ne li nga man lépp def nga ko muy ci joxe sa addiya ci teew sa jëmm ci lépp luñ fi jëf nee na loolu nag kenn ku ne na xam ne defalu ko kenn ku dul sëriñ bi waaye defalu ko kenn ku dul boppam ndax daara ji kenn ku nekk ci ñun rek na xam ne moom rek mooy daara ji nee nag mu ngi soññewaat bu baax a baax a baax a baax baax ci liggéey bi te nga xam ne nii rek la kenn bañ a xeeb dara kenn bañ a oyofal dara saa yu ñu wootee ñu def suñ kem kàttan teew donte benn kuréel fi teewit te nga xam ne mooy daara ji li ñu war a def nañ ko def ba mat ndax loolu mooy fulla te it mooy fayda bul xool téeméeri nit wër la ak kenn nit wër la na yem ci yow ndax ki ñu koy jëfal moom dara ump ko kon nag. comme xam nañ ni dara umb koy it kon war nañuy def saa yu ñu koy jëfalit ñu xam ne mi ngi jàkkaarloog ñun di sëriñ bi mi ngi ñuy gis tey ak bu ëllëgee kon nag ñoo ngi gën a waat suñu bopp di soññ bépp membre bu nekk ci liggéey bi ndax kat kenn ku ne xam ne ne màggal gi xat naa ci ku dëkk Touba waaye lii ñuy taxawal de muy liggéeyu daara ji ay caaxaan taxawal ko waaye nag pësee bu sëkk ak ittee joxe sa bopp ba mu jeex tàkk mooy tax liggéey bi dox mbirum yàlla nag saa yoo bu joxee sa jëmm lépp rek mu jox la loolu toll ak li nga ko jox kon ñu xam ni liggéey daara ji fépp fuñ bëgg mu àgg fa nañ xam ne ñun ñooy ñu jiitu bay ci sa weewu tànk kenn du jikk di jël daara ji di ko yóbbu fenn ku dul ñun ñi tey lépp li ngeen fi gis mu taxaw eh, kenn fekkuleen ci kon nag loolu ab soññee la ci bu baax a baax a baax te ñu fexe góor góorgóorlu ci xam ni lii ñu fi gis ci matériel mu taxaw fi ren jii war nañoo fexe ba bu déwénee bu fi taxawaat mu doon suñu alali bopp te loolu yomb na yàlla te jaayante rek mën na ko def kon nañ ci góor góorgóorlu bu baax a baax a baax baax nee na mi ngi soññuwaat ñëpp ci jataay yi daara yi ci teewaay yi ci addiye yi lenn lu nekk waxtu wañ ca tënk ñu dee ko defee na mu waree kenn ku nekk na xam ni liggéey bi lépp lu ci sikk rek. boo taxawee yow la kon nag kenn ku ne na xam ne dox rek moo ko war buñ ko woowee mu ñëw buñ ko laajee mu joxe ginnaaw loolu nee na muy sant soxna yi bu baax a baax seen taxawaay ndax fépp fu ñu dem buñ geesoo gis leen suñ ginnaaw kon nag taxawaay boobu am na solo lool waaw léegi nag nee na waat mi ngi sant waat bu baax a baax a baax jëwriñ yi dëkkandoo yi bu ñu waxee sëñ Thierno Kayre mi nga xam ne fa la yëngoo di fa tàggatoo sant sëñ borom Cissé. Baye Modou Fall ñoom Baye saa Fall ak mboolem képp ku dëkk fii rek ci gox bi ndax kat wax dëgg yàlla liggéey bu mel nii metti na waaye jafe-jafe yi bari na lool waaye dëkkandoo yu baax te yaatu rek mooy tax li nga fi bëgg a taxawal lépp nga man koo taxawal kon nag ñu ngi leen di sant di leen ñaanal lépp luñ ci sëriñ bi defal ñu bokk ko bu baax a baax a baax tey ñuy waajalaat bu baax a baax a baax comme daanan baaxoo di def fu màggalu Tuubaa gi jàllee ñu dem siyaara ji sëriñ am di mu sëriñ Modou Mbenda mooy ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall loolu ñu ngi koy waajal bu baax kenn ku nekk yóbbaale ko yëgal ko mboole mi saa yoo xamee ne bis bi jàpp ne nag lañ jàppandeegul bu fekkee jàppandi na ci ku tedd ki mooy mooy doon bis ba bu fekkee ne bis boobu jàpp di wuti dinañ ko yëgal ñëpp waaye na ko ñëpp waajal bu baax a baax a baax ñu fas yéene ci teewaay bi muy teel saa yu ñu wootee waxtu wi ñu joxe nañ koy fonk di ko teew ndax kat liggéey bi bokk na ci nosu gi mooy. buñ la waxee heure nga nga fonk ko lool kenn ku ne gis na ni nag loolu day xaw a sooxelee ci liggéey bi ndax ay ndaw rek yu bëgg te jaayante rek ngay gis jamono ju nekk waaye nag ñi nga xam ne ñoo féete ay mag kenn ku ne war naa xam ni ñoom ñoo war di jiitu ndax dinañ soññitu tànk yi bu baax a baax ginnaaw loolu it jëmmi daar jëpp it àndaat di ñaanal Serigne Mbaye mi nga xam ni mooy jëwriñ ji te kenn ku ne gis taxawaayam ci liggéey bi ba mu dooree ba tey jii rek Moussa Baye saa yoo ko gis ci wetu mbooloo mi rek xamal ni booba jéggi na dayoo ci ci télé kon nag ñi ngi ñaan ci barkeb xasida yi ni doon jàng barkeb guddi gu tedd gii ni nga xamee ne la Serigne Touba amee ndam ci liggéey bi mu amee ko ndam ci li mu bëgg liggéey bi saa mi it defal ko defal ko ak wér ak kàttan ak xéewal ba lim yéene mu am ko ak mboolem bépp membre bu nekk ci liggéey bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm te xam ne mbir mi nii rek la li nga yor saa yoo ko fonkee ko teg ko ca kaw mu daal di dem waaye saa yoo ko xeebee lu mu rëy rëy lu mu màgg-màgg ci suuf rek lay jëm kon nag kenn ku ne la nga yor yaa koy taaral yaa koy réyal yaa koy màggal te yaa koy fonk kon nag na ci kenn ku ne bàyyi xel bu baax a baax jataay it bu ciy teew ñu di ko waajal ci suñ kem kàttan nu gën a taaroo gën ndax lii mooy li gën a tedd ci bokk na ci li gën a tedd ci liggéeyu sëriñ muy xasida yi moo tax muy ne woon bokkoon na ci ay karaamam donte xasida yi rek mën naa bañ a doon karaamay sëriñ bi moom kese ndax gis nañ mu bind feneen ak feneen foo xam ne ay karaama la doon ci moom waaye waxoon na ne karaamati xattu yadi fi xidmatil mu ay yadi wakkaana li bil af yadi allahu muhlil karami kon xasida yi daa bokk ci karaama yooyu waxoon na it karaamati duxooliyal jinaana bi nafxi man nawara lil janaana ëllëg ne dugg gi ak mbooloom loolu karaama lay doon waxoon na it bokk ci karaamam bëgg gi mu bëgg yonte bi salaay salaam kon ci wet ak ci wetiliku kon nag bu fekkee dangaa yor ci ponk bi gën a tedd muy xasida yi te mu juddoo ci alxuraan saa yoo ciy teew ci sellal saahiran ak baatin war nañ ci góor góorgóorlu bu baax nuñ gën a taaroo col gi di gën a rafet ñuy gën a sellal xol yi lépp am na ci solo lool ndax sëriñ bi xam na ni kat xasida yi ndëndum buur la te kenn du ko tëggal baadoo la kon nag ndëndum buur saa yoo ko yoree war ngaa xam li nga yor xam ne mooy li gën a màgg te it xasida yi jaamu yàlla xasaa xasaayid yi tànbudu rabbiya shakur wa innaha a abduhu shakur kon ñu ngi ñaan ci baaxu sëriñ bi daara jëpp àndandoo gën a feddali seen yéene ak seen pas ci lii nga xam ne moom la sëriñ bi bëggoon woote ni nañ ko santale boroomam kon lépp loo xam ne jëf nañ ko fi ba ba weer wi tàmbalee ba tey ci alxuraan xasida ci coono lu mën a doon rek addee sëriñ bi la ci jéem koo santale boroomam ci ni mu ko bëggee moom ak ni mu waree donte lot nañ ci xam nañ la ñuy sant la sëriñ bi boroomam waaye lépp dagg bëggu sëriñ bi la tey ñaan mu nangul ñu saytaana bañ ci amu yoon kenn bañ a dog liggéey bi yal nañu yàlla defal tawféex ak ndimbal tey di ñaanal bu baax a baax sëriñ Xaadim mi fi jóge léegi mu sëriñ Mbàkke soxna Lo kenn ku ne gis na ni saa yu jot daara ji wootee rek buñ geesoo gis ko suñ ginnaaw kon na ko ñëpp ànd di ñaanal mu wér te yàgg fi ba lim yéene ci lislaam lépp mu def ci lu kawe njortam kon ñoo ngi sant ñëpp mën naa am nag xel yi fàttu kenn waaye kuñ mën a ñàkk a tuddit sant nañ ñëpp rek bàyyiwuñ kenn ku teew ak ku teewut ñi ci nekk ci liggéey bi te yàlla def ñu wéral it ñàpp yàlla wéral leen kenn ko ne li nga ciy sàkku ci lu baax lépp saa borom def ko sëñ Mbay kàddu yooyu la waxoon donte nam ko waxee woon ñu ñu war ko jaalale sax manqué na waaye nag ñu ngi ciy tuub bu baax a baax te nga xam ne lu ci jub rek suñu borom waaye lu dëng ñu ñu doon wax la ñu ngi jégalu ci kàddu di santit jëwriñ yi liggéey bi sëñ Mbàkke Touré ay waa presse bi nga xam ñoo fi nekkoon ñoom ñëpp ci taxawaay yu rafet yi ñu doon taxaw organisation ñoom ñëpp waa culturel ñoom ñëpp rek banqas yëpp ñu ngi sant ñëpp communication bi ñu ngi sant ñëpp ci taxawaay wax dëgg yàlla boobu ba tey kenn nungutu noppalu nelawatul tëddatul amatul benn jot bu dul liggéeyu daara ji waaye noonu rek la nañ kenn gën a gën a jaayante gën a boppam te xam ni fu ñu bëgg àgg rek góor góorgóorlu sëriñ bi dinañu gàttalu boppam te yàlla nañu dimbali ci barkeb si ibrahim Fall barkeb weeru safar ak liggéey bi ñu doon liggéey waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu.